soxna Bator bi mu yegsee ci aéroport bi ñu jël euh, yóbbu tuubaa ñoom ci seen programmation li fi xew ñëpp xam nañ ko mm-hmm. waaye soxna Bator mi gunge sëñ Béthio ba fii moom fii la jubal si Madina Salaam koo xam ne euh, trois jours avant ay co-épouse ngeen mm-hmm. bi mu ñëwee li mu njëkk wax fekk soxna ay ak mu toog ak ñamu fa toogal ay co-épouse am mm-hmm. soxna Bator li mu njëkk a laaj dane ana soxna Ayda te moo nekk ak sëñ Béthio sëñ Béthio séjour def France yëpp décembre la fa dem xaw ma novembre ba mais nekk ak moom kooku li may wax moom parole am day peser sur la balance bu ñëwoon lu mu wax mun nit ñi mën nañoo penché jëm fa waaye daa ñëw jubali soxna Aida ne ko sëñ Béthio man la mujjee waxal yow la ma wax loolu loolu tënk na wax ji sëñ Béthio man la mujjee waxal te yow la ma wax ñu wëlbati ko àndeek moom nii ñu àndeek moom mm-hmm. ci ñoo xam ne sànnante ngeen ay wattu waaye nag su ma ne sànnante ay wàccu ak i wujj yëpp ñoom ñett ñii day ci teraanga lañ leen mës a xam hmm. ci ànd doon benn lañ leen mës a xam hmm. ci ak taalibi lañ leen mës a xam hmm. ñun ñii amoon taw féex sëñ Béthio di ñëw bitim réew di di ànd ak ñoom dina nu fa fekk si xam nañu ñoom seenu ànd seen compagnonnat ci taalibi kon Euh, fa may daaneel samay kàddu mooy ñaanal leen ñu yàgg ci keppaaru soxna Aïda Saliou doon ay amiram loon ay buntam ba faw euh, kenn bañ leen ëpp ndam fa soxna Aïda Saliou maa ngi leen di sant di leen gërëm jërëjëf jërëjëf gis muy musooroo ko tagalu waaye sawaay boo amul ndimbal dëgg boo amul ndimbal yëfi dina la rëcc waaw barki Serigne Touba mm-hmm. waaye foofu rek lañ koy aj mm-hmm. Serigne Touba moom mm-hmm. dara da koo tënkul du couleur du askan du melo du ak juddu déedéet moom lu ko soob lay def te taarixu yoonu murit kat moo nu jàngal ni maam Cheikh Ibra mas naa jàngale ni Serigne tubaa bu diglee bu sa doom demee bu ñëwee yow sa waajur wii bu ñëwee di sa bàyyi bu sa soxna demee bu ñëwee di sa borom kër kon Serigne Touba xamul ndaw xamul mag xamul góor xamul jigéen Pastef la xam noonu la demee te ñun ñëpp kulluhum taalibe sëñ Béthio bu gore dëgg na ci yow seere nga ni Soxna Aïda Saliou yemul ak kenn Pastef jëm ci sëriñ bi hmm. ñu bëri jàpp ni moom mooy incarné ni mooy sëñ Béthio am na sax ñu dégg ñu génn ñoo xamante ni ci sëriñ bi bokk ñoo xamante ni seen waxin dafa wane ni ni Soxna Aïda booy ñoddi ni mooy sëñ Béthio ndeysaan alors que ni ndax noonu la demee lu muy incarné la lu muy ñoddi la ah déedéet Soxna Aïda day wax dëgg hmm. moom bu ñu waxalee yàlla rek hmm. moom muy ñun ñii di ay taalubeem di di àdduna si nga xam ne ñu ngi seetaan di seere musuñu koo dégg mu ne maay sëñ becco wala mu wane ni daa bëgg a doon sëñ becco sëñ becco la neex ci coobareem mu ne ko yaay man mii maay maay may yow hmm. vidéo yaa ngi fi hmm. daal ne du ma ci jóg internet bi kat du fi jóg waaye man sama jëmm ji dafay jóg moo tax ma ko fiy waxee te du ma jóg ci di ko martelé ba ñépp xam ni man sëñ Béthio mii may soxna Aïda Saliou soxna Aïda Saliou wooyu man loolu sañ-sañub sëñ Béthio la di hmm. sëñ Béthio ko def hmm. ñun ay taalube lañu hmm. ab taalube nag li ko war mooy sëriñam ba nga xam ni gëm na ko wóolu na ko doyloo na ko te mu doy ko sëkk diggam ak sëriñ tubaa te dogali sëriñ tubaa boole kook moom ndax suñ beccokat li nu boole ak moom dogali sëriñ tubaa la muy sëriñ Saaliw moo ne ko woon fépp fu ku baax ne dinaa ko fa jële taqale kook si jëmm ji kon bu nu dimbalee ba boole ñu ci ci ci ñu ànd ak sëñ becco ah ñun mën nañoo rafet nañu njort ci ne ñu baax la ndax sëñ beccokat amul amul amul ku bon amul yaafus barki Serigne Touba. ànd boobu bii ñu ànd ak sëñ Béthio te muy ndimbalal Serigne Touba di ndimbalal Serigne Saliou. Hmm. moo nu booleeg soxna Aïda Saliou. Hmm. muy ndimbalal Serigne Béthio mii di ndimbalal Serigne Saliou. Hmm. ndax sëñ Béthio ni képp ku ma bëggul sa taalube laal suuf. soxna Aïda soxna Aïda Saliou sëñ Béthio nu booleeg moom. ah te sëñ Béthio. gëm nañ ko gëm goo xam ni sëñ Béthio day lu munu digal nu def ko. barki Serigne Touba. ndax lu jiitu ñuy yegsi fii nu yegsi. ba ñuy soog a tàbb ci yoxam moom amoon na melo suñuy waajur suñuy mbokk suñuy am di jàmm ñu bari jàpp ni sànku nanu ñu bari jàpp ni réer nanu man am na sama nijaay ju ma mas a wax yow de ñëpp ne fi nga leen fii romb di jébbalu ci ku sant cuun ma ne ko ndokk waaw man day sëñ Béthio ma doy ndax mooy sëriñ Saliou waaw ca booba ndax booba sama xam-xam weesuwul lool waaye ndeke yoo la ma waxee dëgg ndax te dem naa ba barki sëriñ Touba ñeewuma kenn koo xamante nii da ngay tuddoo ab taalu bi ak foo mën a bokk te loolu sëñ Béthio nu ko defal sëñ Béthio nu dimbali ci ak taalu bi sëñ Béthio nu yóbbu xel koom sëñ Béthio nu tabaxloo daara yi Serigne Saliou sëñ Béthio moo nu daan yóbbu ci Serigne Saliou ñu koy siyaare ji sëñ Béthio moo nu dimbali ñu ñu ñu ñu ñam ci Serigne Touba li nu ñam ci moom ba ba ba ba mën a tàqali ko suñu sago barke Serigne Touba sëñ Béthio moo nu dimbali ci ak murit ba sëriñ bi jaral ñu lii mënu jaral mm. waaw sëñ Béthio taxawaalu waaw wewuñu ay jaaroog suñuy nopp defuñu ay jimbari keleng salte wuñu tilimuñu taxawaalu wuñu waaw ñaanuñu kenn sëñ beccoonu dimbali moo ñu teg ci aw yoon moo ñu moo ñu moo ñu bëggloo suñu bopp gëmloonu yàlla fonk fonkuloonu sëriñ tubaab mii nga xam ni wutewul ak yàlla barki sëriñ bamba sëñ beccoo ñun ñii di ay taalubeem di ay cantaakoon bu nu ko santul gorewuñu waaw li fekk ñu ngi am ci sëñ becco sago ba nëgëni li nu war a def dëgg defuñu ko ndax fa mu nu jëlee ñun ñëpp xam nañ ko sunuy mbokk fii mu toll ñu ngi sant sëñ Béthio ci sunu melokaan mm. ku nu mas a xam yaa ngi sant sëñ Béthio ci sunu melokaan mm. sunuy am di jàmm dañ nuy tiitaroo ndax ni nu sëñ Béthio def mm. waaye loolu fu nu ko mënoon a jëlee ab sëriñ kat bu la mënta defar ba adduna sépp seere ni kii kat lu jiitu muy dem ci sëñ bi melul woon nii te ku la gisaat ñaari at ñetti at après bëgg laa far wan ndax ni la sëñ bi def waaye xam nga ni sëriñ booba ku ku ku sañoon dajeeg moom hmm. waaye dadul bëgg-bëgg mooy tax a moom du da nga koy yéenee dajeeg moom rek dajeeg moom ndimbalul yàlla moo lay booleek moom hmm. moo nu booleeg sëñ Béthio hmm. moo nu booleeg soxna Aïda Saliou muy ndimbalul sëriñ Saliou mii di sëriñ Touba jërëjëf Amir euh, Mame Cheikh fi mu toll nii temps bi xoj na lu dama lay bàyyi nga tàggatoo waxtaan bi am na solo euh, ci Sénégal set ànd gi nga xamante ni ñëwoon nañ ko ànd ak yéen ci màggal gi nga xamante ni moo xewoon fii ci Madinatu Salaam jërëjëf jëf waaw moom day ñu ngi am ak cant lool mm-hmm. ci suñu waxtaan wi waaw Sénégal set jërë ngeen jëfati mm-hmm. jërë ngeen jëfati moom ñun day wax dëgg am na lu ñu wax ndax danoo danoo amul cant cant gi nu am na bu ñu sëñ bi dimbalee ñu am occasion bu mel nii mooy mën a dugg ci internet bi walla télévision yi wax ko mm. dañu koy wax waaw day day mel ni da dang da nga maa dimbali. Mm-hmm. ci jéego yu ma waroon a def. wër la ba gis la toog ak yow ne la dimbali ma ma wax sama cant gi àdduna seere ko. nga defal ma taw tawfeex gii nga ma defal. Mm-hmm. moom maa ngi ciy santaat sëriñ bi. tey ñaan mu di mu dimbali nu. Mm-hmm. ba waxtu wu rek ñuy am occasion bu mel nii. jërëjëf sëriñ Béthio jërëjëfati di ñaan sunu sang bi soxna Aïda Saliou yàgg fi loolu tëwër. mooy sunu sag mooy sunu ndam. soxna Aïda Saliou dëgg dëgg jëmi sëriñ Béthio yàlla na fi yàgg tëwër. jërëjëf jërëjëfaat sëriñ Béthio